والقلم وما يسطرون d'accord ñu ñu ñu jaajëfal ko bu baax ni ñu def rek mbokk yi mooy daal di wëlbatiku kon delluwaat ci kilifa yi woo ki nga xam ne mooy sëñ eh, Moustapha Diop ñëw nag ci wàllu résultat yi te mooy jeexital bi mën naa ne li taxoon ñuy daje ak li taxoon ñu daje mooy liñ doon waajal agsi nañ ci te mooy agsi nag fi nga xam ne fi lañu war a génnee ñi nga xamante ne nii ñooy euh, kàngam yi tànn ñett nit ci ñoom jagle leen ay neexal yu doon sëñ Mbàkke ci bi waaw sëriñ maa ngi sant sëriñ Bousso ñoo xam ne dem ay taxawaay dafa rafet si liggéey bi sëñ Ousmane Gaye di ay Gaye di ay di wóolëreem taxaw ànd ak moom ci liggéey bi saa su ne bu wootalee alxuraan karim xanaa xamal nit ñi rek ni leen waxtu wi xat na waaye àgg nañ fi ñuy jeexale te ku ne xam na ne julli jot na sëñ Moustapha Diop mi nga xam ni moom moo jiite lépp lu jëm si wàllu jury bi moom mooy taxaw incha allah leeral vingt personnes yii ngeen di gis kan moo jiitu ak kan moo si topp ak kan moo si topp ñii nekk ci ginnaaw yi itam ngeen di leen gis mooy ñi xam ne bi ñu tàmbalee liggéey bi ba tey jii ñoo bokkoon liggéey bi di si yëngutu yëngutu yoo xamante ni yu jéggi dayoo la donte sax duñu ñu feeñ waaye seen jëf kawe na tey itam ci ci ay nattukaay yu wér itam lañ koy teg Sëñ Mbàkke kon day mel ni ñu bañ a yàkkamti rek te teewlu ko ndax li ñu fi taxoon a daje lépp lii mooy teral ñaar fukki jëmm yi nga xam ne mokka nañ alxuraan si anam gu rafet bind ko te duñ ko xool ñu liggéey si liggéey bu kawee àgg nag fi ñu leen di joxe ay neexal kon ñu maase teewlu te diglu Serigne Moustapha Diop Ndar mi nga xam ne moom moo jiite jury bi. lu am solo la sëñ Mbacke fi nga daaneele kon nañu ñun ñëpp ànd wormaa leen wormaay teewee euh, li ci des ndax agsi nañ ci jeexitalu mbir mi. sëñ Maam Mor Anta Sali Mbàkke ak sëriñ Basiiru Jaxate ñu ne ñoo fi teewal sëñ baax yi moom sëriñ Xaasim Mbàkke ñoo ngi leen di dalal bu baax a baax kon sëñ Moustapha bismillah aoudu billahi min alsheytaan irrajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalaamu ala ashrafi alambiyai walmursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh waaleykum salaam sëriñ Seck ci turu ji di nuyu sa gan yu tedd yi di kilifa diine yi ak kilifa aada yi di nuyu njabootuk lislaam gépp xanaa li may tàmbalee mooy di sàkku ci mboolem kilifa yi nu may nu rekk ba lii nga xam ne moo des ci liggéey bi ñu àggale ko ci seen teewaay ñu ngi koy sàkku am na lu ñu bëggoon a wax ci concours bii ndax concours bi ni ko bokk yu bari waxe concours spécial la boo xam ne xamuñu fu mu am ndax concours bi dafa boole ñetti concours ci biir fokk nga mokkal alxuraan fokk nga xam nu ñuy bindee alxuraan waaye fokkit nga rafet mbind ci mbindum réew mi benn bu ci nekk manees na ca organiser concours gañe ca gañe ca dana jafe kon suñ ko boolee kooku kon jafe na euh, alhamdulilahi rabbil alamin ki nga xam ne kii mooy ñëw di bokk ci concours bi ñëw ba finaal daañu ko xayma ci jur ci ñeenti wet wet gu jëkk gi mooy mokkal alxuraanam wetu gu ñaareel mooy ndax xam na bindiinu quraan ñi koy wax al rasmul osmaani ñetteel bi mooy sikki bind ndax comité bi dafa dafa tër ay nattukaay yum tuddee sikki mbind sikk yooyu boo ci tàbbee ci benn day wàññi say poñ bi ko ñeenteel mooy ndax mbind mi rafet na walla rafetut kon képp ku ñëw ba finaal dañ la jaarale ci ñeenti nattukaay yooyu euh, alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi war a joxe résultat yi ñi nga xam ne ñoo ñett ñi jël première ci konkuur bi waaye balañ ca àgg suñ mbokk jigéen ñi njaboot gu jigéen gi nga xam ne it dañoo sonn ci alxuraan di bokk ci concours bi def ci liñ man lépp àgguñ ci dayoo góor ñi waaye nag e, alxaaji sëriñ e, da leen di teral ñoom ndax seen njàmbaar ak seen jàpp bañ a kon ñooñu bu ñu jàllee am na fi gone yoo xam ne it am na fi xale yoo xam ne ñoom it ngir seen at yu néew ñu wattu alxuraan man koo bind ba ñëw ci konkuur bi ba ñëw final xal yooyu it doonte gàññewuñu ah, alxaaji sëriñ daf leen di teral buñ jógee ci ñaari group yooyu nag doog a ñëw ci group bu mujj bi nga xam ne ñoom ñoom nag ñoo dem ci final bi ñoom ñoo gañe prix yi kon ma tàmbalee ci groupe bu njëkk bi di woo soxna maam Awa Dem di woo soxna maam Awa Dem ak soxna Mbayang Fall soxna Mbayang Fall ci jigéen ñi bind soxna Mbayang Fall soxna Mbayang Fall dañ koy jox euh, diplôme jox ko neexal boo xam ne neexalu sargal la ak soxna maam bint sëy ak soxna maam bint sëy demal bismillah ak soxna bint jóob soxna maam bint maam bint sëy ak soxna bint jóob soxna bintu jóob waaw mhm. kon ñetti ñooñu ñoom lañuy jox ay neexal ndax seen njàmbaar ci concours bi seen jàppatee bay ah ki nga xam ne kii mooy soxna maam bint Sëy ci cent cent poñ yi laaj am na ci soixante dix huit virgule soixante quinze bu dee soxna Bint Bint Diop am na soixante dix virgule soixante quinze bu dee soxna Mbayang Fall am na 62 points kon ñii El sëriñ Serigne euh, ak waa kër gi dañ leen di sargal di leen encourager ngir seen njàm seen njàmbaar ci liggéey bi euh, ki nga xam ne kii moo jiitu di soxna maam maam Bint Sëy moom am na un million cinq cent mille million cinq cent mille ak euh, diplôme d'honneur ki ci sës di soxna Bintu Diop am na un million ku ñetteel ki di soxna Mbayang Fall am na cinq cent am na huit cent mille huit cent mille jërë ngeen jëf jërëjëf jëf sëñ Moustapha bala moo continuer kon ñii ñu doon jox euh, neexal yi sëñ Mbàkke mhm. dafa mel ne euh, ay neexali sargal la yoo xam ne dañ leen koy soññi. waaw xamoo ñoom dañoo bokkoon ci lim bi. noonu la demee bi ñuy tànn quarante mm. fanweer yi ñoom ñooy fukki yi bi ñuy mm. tànn vingt ñoom ñooy juróom yi mm. nga xam ne ni góor ñi compétiré noonu lañ doon xëccoo bu yàlla doogaloon tey ñu jël premier ñoom ñooy nekk ci kanam waaye bi ñu bokkee ci biir compétition bi te gis ñu mënuñoo jàll ci la alaaji sëriñ ni ñooñu moom bu leen kenn nenal comme ay soxna lañ te xëccoo nañu ak ay góor te jàlluñu il faut que ñu neexal leen nga xam ne ñoom ñi tey prix bi gën a mag ku ci ku ci jëloon effort te mën na ko jël loolu moom mooy sababu li ngeen di gis nii. ay gars yi tàccu leen waaye bu baax nag ah bu baax a baax a baax waaw kay jàmbaar dañ koy tàccu jërëjëf kon ñu bàyyi sëñ Moustapha mu mu wéyal bismillah bismillah ñëw leen nii su ko defee ñëw ci ñaareelu groupe bi ñaareelu groupe bi ay xale lañu yoo xam ne ay tuut tànk lañu waaye suñ borom may na leen ñu dox ci concours bi ba avancé ci am na ci koo xam ne sax ñëw na ba final ci loolu it El Hadji Sëriñ wax ne ñooñu nañ leen encouragé jaajëfal leen sawarloo leen ndax seen mbokki gone yi tout tànk yi ñoom it gën a sawar ci concours bi kooku bokk na ci ku ñuy wax Cheikh Fall. Cheikh bokk na ci Xaadim sàmba xaadim sàmb ana sa ñoom ñaar ñëpp ñu ngi bàyyikoo ci daara yi sëriñ daara njaay ba tax na euh, concours bi kon dafa wax ne sëñ daara moomu sax daañu ko jox diplôme d'honneur macha allah euh, gonek ñetteel gi mooy sëñ Habibou Diop sëñ Habib jóob Habiba jóob mooy suñ doom ji toogoon fii suñ borom nattoo ko mënta wax te muy liggéey ci alxuraan liggéey boobu ñu wax kon ñoom ñett ñooñu ñoom la ñuy jox ay neexal su ko defee ki di Cheikh Fall ak Xaadim Sàmb ku ci nekk am na six cent mille francs sëñ Habiba jóob am na cinq cent mille francs Serigne Daara Ndiaye am na diplôme d'honneur bismillah aywa mu jox ko mu jox leen seeni diplôme bu ko defee ñu door a ñëw nag ci ñi ci topp waaye sëñ Mbàkke boo xoolee ñett ñi sëñ Mbàkke ñett ñi nga gis ñëpp ci daara yi 500000 500000 moom la Daara Ndiaye mi lañ génne waaw mu jóg koo xam ne jàmbaar la 500000 baal ma ma commenté 500000 yi jox nañ ko 500000. 500000 moom lañ jox sëñ Habib Diop sëñ Habib Diop mooy ki doon bind toog foofu léegi te du dégg mënta wax waaye mokkal na alxuraan ba man koo bind. bokk ci concours bi jàngal ay nit bañ mokkal alxuraan moom la ñu décoré noonu jox ko téeméeri junni mbokk yi ñu tàcc loolu bu baax a baax macha allah ku ci topp. sëñ Xaadim Samb diplôme ngi nii Samb sëriñ Xaadim Samb jox nañ ko 600000 moom itam jox nañ ko 600000. 500000. cinq cent mille. jox nañ ko ko ngir. Euh, Xaadim Samb cinq cent mille. cinq cent mille francs moom itam ngir soññee ko ko. Hmm? ayca def na Cheikh Fall am Cheikh Fall mii nii. waaw Serigne Cheikh Fall ñu jox ko moom it. moom it six cent mille. ñu jox seex Fall ñu tàccu Cheikh Fall bu baax waay. sëriñ daara sëriñ daara Njaay ah moo leen jàngal sëriñ daara bi ñu jox euh, neexal bi moo jàngal ñaari dong yi ñu décorer ay dongaam moom it ñu décorer waale ko waaye sëñ Mbàkke waaw daanaka ma doon nañ 421 ñi bokk ñëpp moom mi daay ñëw ànd ak i dongam waaye moo leen jàngal bokk si concours bi ñu bokkoon nekkoon 421 ba mujj bokk si ñaar fukk yi mujj kon tamit moom aaja nañu honoré ko décoré ko loolu moo waral ñu jóge dara muy Serigne Daara Ndiaye mi ngeen di seen jërëjëf Serigne Daara Ndiaye daa ñëw ci concours bi ànd ak i am ñu doon concours moo tax ñu boole leen neexal ko naa xool leen photo bi ak caméra bi bu ne attention ngeen ree ah te itam nag ñoom ñëpp nag yi rafet sëñ Mbacke <laughs> Ah, ñoom ñëpp nag ah, ay finaliste lañ nag. jërëjëf ñoom ñent ñëpp dem nañ final. aywa ñu dégluwaat sëñ Moustapha ci ñeneen ñi ci topp mbokk yi nañ déglu bu baax nag bu kenn noyyi. Ah. kon mbokk yi ñu jëm ci groupe bu mujj bi. nga xam ne ñoom ñooy lauréat yi ñoom nag xëccoo bi dafa tar ndax ni ma ko waxee concours bi dafa yombul. waaye teewul toujours li leen di teqalee tuuti lay doon nga xam ne kenn ku nekk nga xam ne kenn ku nekk mën naa jël ndam li waaye nag concours fokk dana am koo xam ne mooy ne ci kanam ak ku ca topp ak ku ca topp ndax bu ñu xoolee ki nga xam ne kilee mooy ku ñetteel ki ki nekk ci troisième position bi am na quatre-vingt-huit virgule six cent vingt cinq ci téeméeri point yi ñu ko doon laaj ci cent point yi am na ci quatre vingt huit virgule six cent vingt cinq ki nga xam ne kii mu jël deuxième position yi am na quatre vingt neuf virgule six vingt cinq quatre vingt neuf point virgule six cent vingt cinq ki nga xam ne mooy mooy ki jiitu kooku am na quatre vingt quatorze virgule vingt cinq waa jàngoo sëñ Moustapha Guèye kon moo génn mooy premier sëñ Moustapha Guèye ñu tàcc ko bu baax mooy troisième ci concours bi troisième bi ak lu ñu ko mën di jox sëñ ba Xaadim euh, Awa Ba tegal na ko ci cent cinquante mille ñu ne Seyda Adja Binte caw moo koy jox euh, diplôme am moo koy jox itam enveloppe am deuxième bi troisième bi am na cinq millions bismillah gars yi du ngeen tàcc 5 millions yi. bu baax a baax a baax. macha allah sëñ Moustapha Guèye am am tegal ko ci enveloppe bi ko sëñ Bas jox. jox ko enveloppe baa ngi noonu. diplôme baa ngi noonu. ak kado bi concours bi li mu doon bari bari moom moo jël troisième sëñ Moustapha. technicien bi mu dugal lan. kon ñu xool boobu deuxième bi xam ngeen ni ki jël premier dana am dana am cinq millions dana am cinq millions ki ki ki jël troisième. waaw dana am cinq millions euh, Serigne euh, Bachirou Awa Awa Ba tegal ko ci tegal ko ci cinquante mille waaw. tegal ko ci cent cinquante mille macha allah loolu am na solo takbir takbir allahu akbar allahu akbar bismillah sëñ Moustapha kooku ñëw na kon ñu ñëw ci deuxième bi deuxième bi waxoon naa léegi ne am na quatre-vingt-neuf points quatre cent vingt-cinq points digganteem ak kee benn point moo ci dox diggante troisième bi ak deuxième bi benn point moo ci dox kon ñu dem ci écran bi برحمة ربك بمجنون mbaa ngi noonu Modou Diagne mooy deuxième bi kon Modou Diagne Modou Diagne moo jël deuxième bi ñu tàcc Modou Diagne bu baax sëñ Muntaxa Pakala moo koy jox neexalam bismillah enveloppe bi ko sëñ Bass bi. mooy am 5 millions 500 sëñ Basirou Xaadim Awo ba tegal ko ci 200000 ñu tàccu Modou jaañ bu baax a baax am diplôme moo jël numéro 2. ci concours yaatal mbindum alquran bu 2023 am na 5 millions 500 moom la ko C3S jox waaw Serigne Bassirou Xaadim Awa Ba tegal ko ci 200 000 francs ni mu tegalee troisième bi 150 000 francs nga xam ne nag moo jël raw gàddu gi di premier bi kooku am na 94 point virgule 5 digganteem ak deuxième bi. quatre points et demi moo fi dox ñeenti point ak genn wàll. bi nag bu mag bi première baa ngi noonu moom war naa am six millions trois deux un waajaa ngoog waajaa ngoog anta bi ni'mati rabbika bi majnuun Cheikh Dieng mooy jël première mbokk yi ñi ci saal bi ñëpp ku say tànk métti wut jógal taxaw. yi ñi ci saal bi ñëpp ku say tànk métti wut jógal taxaw. ku say tànk taxaw. ñu tàccu Cheikh Dieng bu baax a baax a baax. Cheikh Ibrahima Sy. sëñ Modou Mbacke Sy moo koy jox. Cheikh Ibrahima Sy ay neexalam. Cheikh Ibrahima si nga ñëw. sëñ Modou. sëñ Cheikh Ibrahima ak Serigne Modou Mbacké. am am jox ko bi. waa koy am boole ci lii sëñ bi boole ci deux cent mille boole ci nañ avancé ba ci kanam rek mu yaatu avancé leen ba noonu mi ngoo kon seex Dieng moo gagné première bi am na 6 millions moo yëkk mi ngi noonu sëñ Modou Mbacke si moo koy jox am na 6 millions moom mi gagné concours al bind bi di sëñ Cheikh Dieng sëriñ Basirou Xaarim Awa Ba tegal ko ci 250 000 ñu tàcc ko bu baax a baax mbokk yi. sëñ Mbacke. waaw moom moomu ne ab jàngalekat la. maanaam depuis ñu commencé liggéey ba léegi. mi ngi bokk mi ngi bokk. fi mu doon tey boo ko fekkoon famille naa fi la. doo nangoo dem ndax alxuraan ju neex. macha allah maanaam jàmbaar la ab liggéeykat la man na alxuraan. macha ñu commencé ba léegi day bokk ci liggéey. macha loolu am na solo sëñ Mbacke ki gagné concours bi jàngalekatu alxuraan la biñ tàmbalee ba léegi mi ngi bokk ci concours bi. waa léegi nag li ci des rek mooy ñu toog nangu ñaan te jotaay bi sëñ eh, xambaan bu Cheikh Mouhamadul Fadal mooy ñaan incha allah ñu yëkkati jotaay bi sëñ Moustapha kon bokk yi El Hadj Serigne ak sa gan ñu tedd ñi. waa comité scientifique waa jury bi ñu ngi kon di leen sant te di leen gërëm ñaan suñ borom euh, def barke ci liggéey bi dafa am nag mbokk moo xam ne ku bokkoon ci concours bi la te gagné woon at ya passé ñu koy wax sëñ Saliou Mbacke Kajoor sëñ Saliou Mbacke Kajoor mbokk yi na ñëpp toog nañ toog rek benn minute rek sëñ bi ci kaw jàkkaarloo yéen ñaan. sëriñ Saliou Mbacke Kajoor bismillah yàlla dafa dogal ci moom mu faatu. sëñ Sadio Mbacke Kajoor bokkoon ci ñi nga xam ne ak maam Thierno Ndiaye kon ñuy sàkku ci jullit ñëpp ñu jàng fatiha ak lixlaas ñaanal bokk yi nga xam ne dañoo nekkoon ci concours bi sëñ borom def ñu faatu. aywa ana sëñ bi na ñaan bisimilah bisimilah ñu may sëñ bi mu ñëw rek ñaan. na taxaw ci bii ñaan wala mbokk yi nañ nangu ñaan ñun ñëpp nañ nangu ñaan ñi ngi may wax cadeau boo xam ne sëñ Abdou Samad Souhaïbou moo ko indi ngir jox ko ki nga xam ne mooy alaaji sëriñ Seck final baa ngi noonu waaw asalaamaaleykum ñi nga xam ne jotoon nañu ñëw ci final bi mbooleem ku agsi woon ci final mbooleem ku ñëwoon final am nga enveloppe 500000. mboolem koo xam ne nangu leen ñaan nangu leen ñaan. mboolem koo xam ñëwoon nga ci final bi am nga enveloppe 500000. waaw xool leen lii ñuy dajji bala ngeen a dem na ko ñëpp xool ki jël bind ki jël première li mooy lim bind. ki jël première poster bi ñuy dajji mooy lim bind sëñ daan na gaaw tuuti. dem leen ti kanam dem leen ci kanam yëkkati leen ko ngeen dem ci kanam. jërë ngeen jëf.